jërëjëfati Cheikh na Ahmadul Khadim euh, sant nañu sunu borom bu baax a baax te di ñaan sunu yaakaar Cheikhul Khadim mu santale nu sunu borom bi mu mayee ren nu ñëwaat fe defaat fii ndogu li te ndogu lii kat ndogu li ma dàqal si koor gi lay doon su ma ko waxee nag nit ñi war nañ ko man xam nangu ndax kat ndogu loo xam danga koy ngay ndogu si watu Cheikhul Khadim jullee timis wartu seexul xaddim tàllakal sa loxo loolu wax dëgg yàlla mënuma ko am fenn fu dul ma ñëw fii moo tax daayira bi mu muxaddamatul xidma maa ngi leen di sant bu baax sànq bi yàlla defe ma ànd ak ñoom wër gis mbooloo mi laa xam ne liggéey bu rëy la waaye nag yéen dangeen am cër ci yoon wi ndax kat soxna jaar bu sa moonu may cheikhul xaddim kon nag su ngeen taxawoon nii jumaa cheikhul xaddim gi taxaw bërëbu cheikhul xaddim taxaw di dundal jumaa ji wax dëgg yàlla taxawaayu soxna jaara ku bokk ak soxna jaara taxaw ngeen ko taxaw bu mat sëkk maa ngi sant bu baax a baax te di dellu di wax ni man de am naa yéene liggéey bu ngeen sumb rekk maa ko yëg te di ñaan yàlla def su ma ko yëgee ma man si loo xam ni dana sedd seen xol ndax kat man suma dund gi amatul benn benn doxalin ak benn jumukaay lu dul wut loo xam ni dafay tax ma am gërëmal Cheikhul Khadim seetal li ma sëñ Muntaxa yàlla na fi yàgg te wér yàlla na fi yàgg te wér yàlla na fi gën yàgg lool te wér xoolal li ma def tey sama morom yi ma bokkaloon lang ga tàllunu ñëw fii si jumaa ji man julli si naa àjjuma fi laa jullee tàkkusaan dem sa njàng ma dellu si ñëw fekkee conférence bi ñëw dogoog yéen dem julli si watul Cheikhul Khadim te lii sëñ Muntaxa rek moo ko man si man moom awma ma fayam yàlla nanu ko sëñ Tuubaa fayal mu yàgg fi lool te wér te nag boole bi dafa am boole baatin dëgg-dëgg man maa leen soppaloon sama bopp sëñ Abdou Lahad bii sama sëriñ boole ma moom ma soppal leen sama bopp ndax gis seen taxawaay ndax kat kuy wut sëriñ tubaa gis waa kër soxna bu Buso foofu moom man nga fa amee sëriñ tubaa looloo tax ma jubu leen woon rek waaye nag beneen baatin laal si koroog guddi gàmmu ñoom danu dem si sëriñ bi di ma tudd di wax ni daanu soxla si liggéey yi koo xam ni si wàllu yoon daf leen di taxawal ma ni su ma dikkee ñëwee ma waxtaan seek moom ma ñëw miin ma kon yaay seen avocat mi ngi nii ba da si saasi rek dañu toog tuuti rek ñoom jógaguñu si kanamu sëriñ bi ma ma fëgg nuyoo kon loolu beneen xeetu boole la ñu ngi sant bu baax dellu di sant Cheikhul Khadim te di dellu di ñaan sunu borom li des sunu dund gi nanu dolli wér nanu dolli mën-mën nanu dolli kattan te lépp nañ ko jëmale si liggéeyal cheikhul xaddim lépp nañ ko jëmale si liggéeyal cheikhul xaddim cheikh cheikh Muntaxa yàlla na fi yàgg lool te wér jërë ngeen jëf jërëjëf yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bilaa adadi